amoon guddi donc du ñu yem ci ñaari victime on plus de waaw voilà. waaw sapeur yóbbu nañ leen je pense que le ministre lu mu wax c'est très clair euh, l'État vraiment fera l'accompagnement nécessaire pour appuyer famille pour taxaw ko la mairie aussi fera l'accompagnement vraiment pour assister famille bi taxaw ko parce que situation bi ñu nekk nii c'est catastrophique ñàkk yaay ñàkk maam ci benn jour ñàkk aussi fi nga dëkkuwaay parce que tey kër Ah, bett leen aussi donc lu ñuy wax rek mooy autorité bi vraiment ñu taxaw muy autorité communal autorité centrale bi ñëpp ñëw taxaw ñu ànd ak ñoom jàppale leen pour lii mën a am en tout cas message bi ñu lancé waat mooy wax waa message bi mhm. mën nga wax nit ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan sapeur pompier def na kéemtalaay kàttanam pour teel leen a génn waaye état kër gi ni mu demee moo tax mu xaw a yéex bon muy sapeur mhm. muy euh, muy euh, muy muy police muy préfet muy mairie équipe yooyu yëpp ñëw nañ à temps ils sont venus à l'heure def nañ ci lu ñu mën taxaw nañu mais xam nga tey benn dal bu nekk ci kaw moo daanu fekk beneen dal ñaari dal ñaari charge la moo wàcc ci kaw ñaari nit donc c'est pas facile aussi pour nga ñëw dindi ko en un temps ils ont fait plus de 4 heures 5 heures de temps pour mën a génnee ci sous décombre yi lu tax loolu am nañu ay machine yoo xamante ne il peut percer mais wóorul ki nekk ci suuf xamoo fan la nekkee donc mënoo percer léegi da ngay dem ak prudence da ngay teggi teg teggi teg ak xam ngeen suñu réew mi on a des problèmes de moyens logistiques mais je pense que euh, li ñu jàng fii ministre bi était là ba euh, victime yi génn lay soog a dem je pense que nee na conseil des ministres la nekkoon ak le président de la république bi ko président jotee président ne ko arrêté conseil des ministres nga dem xoolal ma loolu lan la donc je pense que bu eggee dina ko jotali président dinañ ci jël les mesures nécessaires vraiment a taxaw ci lii nii parce que c'est des choses yoo ne euh, tey commune bu mel ni parcelle fu mel ni Gueule Tapée Médina c'est un peu compliqué te c'est des risques ñu ngi jëm ci nawet donc luñ ci mën taxaw muñ ci def rek nañ ci taxaw def ko ci vraiment loolu non ils sont obligés mu am suivi en tout cas ñun au niveau de la mairie ah man de ministre bi ma dégg mu wax Birame Faye man gëm naa ni y une suivi parce que ils ont fait un travail nécessaire teg stratégie yoo xamante ne léegi dañuy dem sur la mise en œuvre mais au delà ñun ñi nga xam ne fi lañ en tant que adjoint au maire ñun suñu politique mooy bi ñu jël mairie bi loolu cadre de vie bi da bokkoon protection civile da bokkoon donc

donc tey lii am loolu day confirmer ni que ne affaire bi amatul xaar amatul toog xaar muy maire muy la population muy les chefs de quartier na ñëpp jóg te affaire bi nag ci quartier yi lay commencé euh, ñi nga xam ne euh, ñoo dëkk ci quartier yi muy les chefs de quartier dëkk ci koñ bu ñu gisee des bâtiments menaçant ruine seen biir quartier yi ñoom ñoo war a informer le de quartier le chef de quartier informer euh, la mairie donc la mairie aussi fi nga xam ne foofu lay foofu ses possibilités fu mu yem mu demee ba yegg foofu mu informer le sous-préfet le préfet informer le préfet de Dakar le préfet de Dakar informer le ministre bi nga xam ne moom moo chargé de la tutelle donc ñooñu ñëpp ñëw taxaw ci ñu informer le chef de l'État ñëpp dugg seen loxo pour éradiquer ce fléau là parce que lii mairie amul budget pour defar ko amul logistique parce que day demander ay engins day demander ay pokanay day demander tout un une logistique pour vraiment mën di ci ñëw taxaw pour cas yu mel nii bu amee te ci nawet lañ jëm ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo le président de la république di ci woo le maire des Parcelles Assainies Ababacar Jamil Sané di ci woo aussi la population parce que ñoom il faut ñu dugal ci seen loxo population bi il faut ñu dugal seen loxo pour ñu mën a freiner lii sinon dinañ am yeneen cas gën a doy waar yàlla na yem fii yàlla na fi yem ñi fi jógee yàlla na yàlla na na suuf woyof seen kaw euh, yàlla na leen yàlla xare aljana vraiment en tout cas ñu ngi masawu ñëpp di masawu la famille Camara qui est une famille très très forte parce euh, jël nañ ko ak euh, ngëm donc loolu day wane ni vraiment euh, seen une famille qui très très forte donc ñu ngi remercier ñëpp di remercier aussi euh, tey presse bi fi ñëw taxaw fi boobu ba léegi euh, di relayer information bi pour vraiment tout un chacun ku ci nekk mën a comprendre danger bi nga xam ne mooy guetter les sénégalais di guetter vraiment nit ñi nga xam ne vraiment ñooy dund tey ci ci société sénégalaise bi donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax merci jaajëf lépp reprendre ko waaye xam nga lu yàlla di dogal rek parfois certes on a des responsabilités individuelles mais am na loo xam ne tamit ndogal yàlla la parce que su fekkee jël loon décision mais jël na décision yéen mii gis ngeen briques yi mu àndi pour dal bi mais il y avait cinq à l'intérieur mais cinq personnes yi yaakaar deux moments ñoom ñoo mujj ñoo si mucc des parce que ñoom ñoo newoon position boo xam ne foofu la dal bi affaissé wu parce que dal bu nekk si kaw moo affaissé wu si dal bu nekk euh, rez de bi boobu affaissé wu seen kaw c'est comme ça c'est passé donc il y a euh, kenn ki 64 yaayam 94 ans ñoom ñaar yëpp a donc il y avait cinq personnes mais tous les autres amuñu benn ingratitude am benn benn gaañu gaañu ils sont sortis sains et saufs. blessé euh, am pas de blessé pas de blessé il y a que deux morts voilà parmi les cinq. Euh, euh, ay mesures je pense que loolu la doon wax sànq ministre bi ak préfet bi ak sous-préfet bi am na loo xam ne ñun dañuy constater bind borom kër yi. Et ça, on l'a fait à maintes reprises. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 145 maisons qui sont dans cette situation au niveau des parcelles assainies. Euh, borom kër yi bu nekk bind nañ leen ne leen seen kër da ngeen ko war a daaneel parce que situation mu toll nii euh, seen bakkan mën na ci des lu ci des nag ñun dañuy def sommation tamit te def nañ ko tamit te xam naa ni dans peu de temps euh, peut-être si biir mois bi na am yoo xam dañ koy daaneel. dañ jël suñu responsabilité mettre nañ ko depuis dëmb sax ñu si doon waxtaan ak sama waa service pour ne leen nañu reprendre tamit ñu xoolaat yeneen yi balaa ñu koy commencé mën ko recensé xam nga recensé nañu 145 am na yeneen yu si dolli ko tamit loolu moo tax ñu demandé à ce que ñu reprendre recensement bi euh, tey lu fi am ni Euh, am na feneen mais ñaan ñu ko yàlla mu tegu ci encore suñu kaw commune. léegi mooy lu may lancé ko message surtout ci construction bi la xam nga kër yoo xam dañuy janoo ak géej gi ute na kër yoo xam ne nekkuñu ci wetu géej gi système d'érosion moo koy andi donc lu ñuy luñ ñu leen di mën a wax surtout mooy type de fer ñuy utiliser nañ ko xoolaat borom kër gi mën na jël ne. damay faire maçon bi nekk début bi faire de douze la choisir pour sama kër par par situation mu ne ko faire de dix laa choisir mais maçon bi mën na ñëw suy jënd mu jënd huit ou six mu ñëw defal ko mais du ci xam dara donc foofu mooy problème bi. matériaux yi matériaux de construction yi mooy problème donc na nit ñi xoolaat bu baax a baax fànn boobu. donc mooy képp koo xam ne dafa am kër. boo xam ne dafa nekk en situation délabrement très avancé nañu siñaale ñun ñu ñëw lu ñu mën a def su fekkee ne moom si boppam mënu ko démolir ñun ku ñëw mairie bi nañ de autorisation man amul ban autorisation buy ñëw devant mairie pour démolition te si ñëw ma autorisation démolition musul fanaan si man donc lu ñuy ñaan nit ñi képp koo xam ne bëgg na démolir sa maison na ñëw immédiatement na rapproché service compétent de la mairie lu ci war nañ ko def loolu moom maa ngi laaj si appel boobu nee lii daal ñun yëpp dañ ci war taxaw muy fii muy feneen parce que fépp foo xam ne Sénégal la dañ ci war taxaw parce que ñun am nañ problème boobu tey euh, ministre wax na yeneen problème encore au niveau de la Médina mu ne ma situation boobu moo gën a catastrophique mais man lu ma concerné sama commune moo ma concerné donc ñu fi dëkk ñoom lay waxal nag ku nekk jël ay mesures idoines pour de pareilles situations ne se reproduisent pas waaw leen di gërëm den sant